وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله mbokk yi seetaan seen télévision MK TV di chaîne bu mag bi nga xam ne moo nekk ci grande mosquée de Touba te daayira muqaddamatul xidma ak commission communication bi nekk ci biiram yor ko ñi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellusiwaat nañu ak yéen ci seen émission bu mag bi ñu tuddee nemmeeku émission nemmeeku nag émission la boo xam ne li ko tax a jóg mooy nemmiku barab yi nga xam ne am na taarix ci yoonu murit am jaar-jaar ci yoonu murit sëriñ bi sanc ko wala lenn ci ak njabootam sanc ko ñu war waxtaane barab boobe ak jeexital ya ca nekk yu ni mel yooyu lañu ñu war a waxtaane tey tey jii nag ñu ñëw ci barab bu tedd ñu koy wax xuru mbàkke xuru mbàkke am taarix lool ci yoonu murit ndax ku tudd xuru mbàkke di nga tudd sëriñ Mor Anta Sali mi nga xamante ni moo ko sanc xuru mbàkke googu tey fi lañ war a ñëw tey nemmee ko si fi waxtaani taarixu xuru mbàkke waaye waxtaani itam jeexital yi nga xamante ni moo am xuru mbàkke xuru mbàkke nag buñ ko doy wax dëkk la boo xam ne mi ngi nekk fii ci région de Diourbel boo jógee Touba jëm Njaareem boo rombee dëkk bi ñuy wax Kër Ibra Yaasin bala ngaa àgg dëkk bi ñuy wax Ndula diggante boobu ci la Xuru Mbàkke nekk diggam ak Touba war a toll ci ñaar fukki kilomètre ak juróom Xuru Mbàkke googu tey fi la ñu ñëw war a waxtaane taarixu Xuru Mbàkke ak jeexital yi nga xamante ni moo am ci Xuru Mbàkke war fee war cee ànd ak nag koo xamante ni euh, xam-xamam wala ab gëstoom ci taarixu dëkk bi màcc na ci muy doomi dëkk bi ñu koy wax sëriñ Mamo Diop moom lañu fas yéenee àndal tey ci suñu émission nemmeeku kon ci kanam tuuti ñu dajeek sëriñ Mama waxtaan ak moom ci taarixu Xuru Mbàkke mooy seen émission nemmeeku tey loolu la leen indil ci juróom mbenneelu numéro zikri wa sukri wa rirwaani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlaami lillahi كلي لو جل في سر وفي علن ولست أسأل خير النبي الله waakay kon mbokk yi ni ñu leen ko waxe woon ci ubbite bi ci njëlbeen gi ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bi ñuy wax Xuru Mbàkke di dëkk bu am taarix ci yoonu murit seen émission nemmeeku fas yéene fee tey nemmeeku dëkk bi wax itam taarixu dëkk bi ak jeexital yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi muy Xuru Mbàkke Euh, ñu war cee dalal nag sëriñ Mama waaye bala ñoo ñëw ci sëriñ Mama Diop dañoo war a ànd ak sëriñ Modou Diakhaté ni nga xam ne doomi sëriñ Moustapha Diakhaté moom sëriñ Mbaye Diakhaté la moom itam ku tudd Xuru Mbàkke tudd sëriñ Mbaye jaxate euh, moom mi nga xamante ni moom la ñu dénk dëkk bi teg ko ci loxo muy chef du village dëkk bi te kuy ñëw ci dëkk nag dangay jaar ci bunt ba kon moom mooy buntu xuru Mbàkke kon ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko sëriñ Modou ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi bu ko defee nga ubbi ñu jotaay bi ñu doog a ñëw ci Serigne Mame Mor. ok asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye nuyoo bi nag dañ koy jiital xalifa général Serigne Mouhamadou Mountakha di ñaan tun borom toll ko wér guddalu fanam bala mu yéene liggéeyal Serigne Touba. ci xilaafaam suñu borom may ko ak kattan geeg wér gi mu àggale ko di ci teg euh, xalifa sëriñ Bay Jaxate bi fi nekk muy sëriñ Abdoulahi Jaxate di ko ñaanal moom it gudd fan ak wér ak mbooleem rakkam yi fi nekk yépp maa ngi tudd sëriñ Modou Jaxate di doom sëñ Moustapha Jaxate moom sëñ Bay Jaxate nekk fii ci Xuru Mbàkke euh, sëñ Abdou Jaxate mi xam mooy borom dëkk bi jël dëkk bi teg ko ci samay loxo kon taxawaay boobu la euh, taxawee fii ci dëkk bi barkalla jërëjëf Serigne Modou ci kaddu yu am solo yi nga xam ne moom nga ubbee ni ma ko waxee rek faw nga ubbil ñu jotaay bi ñu am ci nag ay laaj yoo xamante ni faaw ñu jagleel la ko laaj la ko nga ubbil ñu ko jotaay bi bala ñoo euh, sëñ dalal sëñ Mama ci lu aju ci wàllu Xuru Mbàkke dëkk bu tëdd bi ñuy wax Xuru Mbàkke tam am taarix lool ci yoonu murit fu baree bari tur wa àgg fi bari na ñoo xam ne sax dégg nañu tur Xuru Mbàkke mm-hmm. te mosuñoo ñëw Xuru Mbàkke bëggoon nañoo xam dëkk bii di Xuru Mbàkke kan moo ko sanc ak ci yan jamono la ko sanc waaw alhamdulilah waaw fii Xuru dafa bokk ci euh, dëkk Sëriñ Tuubaa yi maanaam woy juróom moo ko sanc Sëriñ Mor Anta Sali kañ la ko sanc wax nañ ne mooy at mi nga xamante ni ci la Sëriñ Tuubaa feeñu jamono at moomu rek ci lay feeñee. mille huit cent cinquante deux wala mille huit cent cinquante trois. xam nga am ñi wax na lii wax lee waaye li ma lay waxal mooy at mi feeñee jomono daal. Mhm. la ñëw fii moom sëñ Mor Anta Sali bi muy ñëw nag fii ñëwul woon ci dëkk bii nga xam mooy Xuru Mbàkke waaye mi ngi woon ci dëkk bu ñuy wax Nja Nja mi ngi féetee uh, ba gànnaar Xuru Mbàkke lu mat kilomètre wala bu manqué tuuti doon ñëw ci jan ni jaayam du ñuy wax sëñ Ahmadou Binta Kan bi mu fi ñëwee mi ngi ànd ay ay tout tànk dinañ jàngal maanaam ay donga bi mu ñëwee fi sëñ Ahmadou Bind Kan moomu am fi ab biir xam ngeen ni ab sëñ daara ak ay dongaam dana soxla barab bu xaw a yaatu tuuti ci looloo taxoon ni nekku kat danga ngaa war a dem ba ne tuuti ndax mu gën a yaatu ci yow moo tax mu ñëw ba fii li indi baatu Xuru Mbàkke bi nag ñoom ñooñu nga xamante ni ñooy wànja bon masaan am soxla fii Xuru Mbàkke wala sax seen soxna yi di watti lu mel ne ko mbuum dan naan nan dem ci xuru waa Mbacke woowu loolu mooy indi tur xuru Mbacke mm. waaye sëñ Touba moom doo ko wooyu noonu njalo ko daan wooy waaw léegi sëñ Mor Anta Sali ñëw fii sanc bi fii mooy daara ji nga xamante ni fii la njëkk a daal fi mu ñëwee nekk fi ak ay dongaam eh, di jàngale alquran soxna jaar itam nekk fi di liggéey liggéey bu am am solo bari na bari bari loo xamante ni ci taarixu murit buñ koy wax soxna si fii la ko defee sëñ Mor Anta Sali nekk fii di jàngale di yar di tarbiya am nañ fi ab diir. jërëjëf sëñ Modou kon dafa mel ne ubbite bi leer na ramaseel nga ñu lu bare bare sax ci taarix Xuru Mbàkke mhm. xam naa kon dañuy ñëw rek dalal sëñ Mamma bu ko defee gën a yaatal li nga xamante ni nag mhm. mooy jëmmi dëkk beeg melokaan weeg yeneen xeeti jeexital yi fi nekk ak yoo xamante ni si na koo lim ndax ku tudd Xuru Mbàkke rek tudd Soxna Jaara tudd nga ko léegi ci sa biir wax mhm. ndax bari na ci lu ñuy lu ñuy askanal sax beneen dëkk waaye nekkati fii la xewe ci Xuru Mbàkke ndax fii la gën a yàgge fii la fii la téye woon sàkke bi fii la xare woon gaal ga <laughs> yi yu bare bare bari yoo xamante ni ci taarix nit ñaa ngi koy dégg te loolu uh-huh. war naa ubbi bopp nit ñi ci yéen ñi nga xamante ni yéen a gëstu taarix boobu ba am ci lu wér ñu mën koo baax mbokki taalibe bi loolu rek moo tax a jóg émission Nemmeeku kon sëñ Modou ñu ngi lay sant bu ah, baax a baax di la gërëm ñu jéem a dalal Serigne Mamadou Diop mu àggali lees waxtaan ok jëf euh, mbokk yi ñu ngi ak sëriñ Mamadou Diop ni ñu leen ko waxe woon ci njëlbeen gi mm-hmm. moom mi nga xamante ni moom lañ fekk si fii tey ci dëkk bi ginnaaw bi ñu waxtaanee ak Serigne Modou Diakhaté mu ubbil ñu jataay bi waaye sëñ maama mi nag la ñu war a àndal nag ci mm-hmm. waxtaan wi muy taarixu Xuru Mbàkke sëñ maama kon ñu jox la nga nuyoo rek mm-hmm. bu ko defee ñu doog a tàbbi ci biir waxtaan wi jërëjëf sëriñ Diop ñu ngi lay siyaar bu baax ñu ngi tàmbalee ci nuyoo bi di wax bismillaahi rahmaani rahim di nuyu sëriñ Muntaxa xalifa général kulli murit yàlla na fi yàgg te wér noonu la ñu nuyoo sëriñ Amdi Moodu Mbend xalifa bu maam Cheikh Ibra Fall yàlla na fi yàgg te wér noonu lu ñuy nuyoo sëriñ Abdou Rokhaya Fall xalifa sëriñ Mor Talla Fall yàlla na fi yàgg te wér di siyaaro baax sëriñ Abdoulahi Jaxate ak mboolem njabootu sëriñ Bay Jaxate gépp rek bayuñ kenn ak waa Xuru Mbàkke gépp ak seen bi di MKTV Muqaddamatul Xidma ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ngi ci dëkk bu sell dëkk bu tedd dëkk bu barkeel di Xuru Mbàkke mm. lan moo waral Xuru Mbàkke sëriñ Mamar Anta Sali moo ko sancoon 1852 1852 année bi sëriñ Touba ganee jamono ba am juróom benn weer sëriñ Touba nag Mbàkke la ganee jamono mooy stade bi nga xam ne yàlla dogal na ñu ngi koy defaraat te sant ko Baye Fall yi boo avancé tuuti ci penk bi foofu la sëriñ bi ganee jamono lan moo waraloon ñu sanc fii kenn ku ne xam ne am na dëkk bu nekk fii bu tudd Njax Ahmadou Binta kan ma fa nekkoon ak soxna Anta Sali ñoo bokk ndey ak baay ca cosaan nit daane jug di fekk nijaayam léegi la jamono yàqu ba loolu moytuta am waaye ki di sëñ Momar Ansali bu mu ñëwee Ahmadou Binta Kan ne ko ginnaaw da ngaa yor ay dong akuk jur ma yor ay dong akuk jur fii mën naa xat fi nun daa di ànd ak moom dox un kilomètre ba jéggi aw xur kenn ku ne xam na ne boo jéggi aw xur aw tund nga ci teg mu sanc fii mille huit cent cinquante ñu demee nag ba mille huit cent cinquante trois ñu koy wax njagu mag ak njagu ndaw bi ñu demee ba 1853 dëkk yi fare noonu muy njax ak ay caaxoog ay mbili dëkk yi xam ne yàgg nañ bu ñu bëggatee li ñuy jëfandikoo ci aw xur naan demal ci xuru waa Mbàkke ña mm-hmm. am na nangam demal ci xuru waa Mbàkke ña loolu moo indi baatab xuru Mbàkke mm-hmm. biñ fi dawalee tuuti ba 1854 jàpp 55 sëñ Abibulahi gane fi jamono mm-hmm. mooy tofam moo toppoon ci Sëriñ Tuubaa waaye moom ci tuut tànk la fi des nelaw ñu denc ko fi ñuy dawal di dawal ba 1861 jàpp 62 li waraloon dëkk bi gent ah bala ngaa ñëw foofu sax sëñ Mame ma mhm. euh, dañoo bëggoon xam. Mhm. dëgg-dëgg wax nga ko. Mhm. cosaanul xuru Mbàkke. fi tur wi jógee. Ah. ak ni ko sëriñ bi sancee. sëñ Mor Anta Sali. Ah. ak jamono bi mu ko sanc loolu leer na yaakaar naa ne. Ah. waaye ñu bëggoon a xam dëgg-dëgg li taxoon sëriñ bi sëñ Mor Anta Sali sanc ko. dafay ñëwoon yor ay dong di jàngale. wala da doon dafa yoroon daari tarbiya. wala dafa doon bay wala lu ko fi indi woon maam bi bi ko nijaayam sanc sancloo fi ba mu sanc fi yoroon na fi daara ju mag ndax sëriñ Mamar Anta Sali daaraam jooju université la doon daara joo xam ne rek da ci doon jàngal ay waa këram fu waaye man nit dana jàng fi barab ba wattu ne naa dem ci daara sëriñ Mamar Anta Sali maanaam lee fa ndax bari na xam-xam sëriñ Touba suñuy nopp moom it mën nañ ne fi la dala jàng ndax nit ki bu fekkee dafa ñëw fi barab bi muy ñëw juróom benn weer la am ndax 1852 bi la sëriñ Touba gën jamono bi ñu amee juróom benn weer lañ sanc fii kon mën na ne ci daara Serigne Mamadou Anta si la Serigne Touba jànge ba am fukki at ak benn ndax dëkk bi muy gentaat di 63 la gent boo calculé 52 ba 63 loolu fukki at la ak benn ñu baree baree bare jaar nañ ci loxo Serigne Mamadou Anta li daara ji moo nekk nii eh, dañ ko tabaxaat léegi waaye daar fii moo doon daara Serigne Mamadou Anta sa ginnaaw waaye sëñ Abibulahi mi ma la wax lay bi fi ganee jamono 1854 jàpp 55 des fi ci tout tànk ñu denc ko fi waa ñu dem ba 1861 dugg 62 li waraloon dëkk bi gent ca Lat Joor la jóge woon ca Kajoor xam nga Lat Joor jamono moo doon da damelu Kajoor tubaab bi moo doon colonial bi léegi li war tubaab bi dana woon Lat Joor damaa bëgg raay bi jógee Ndar jaar Tiwaawoon dugg Cees ñu ci transporter bagage Lat Joor d'accordoon loolu moom ba signé tubaab bi joxoon ko ñeenti fas ndax oto amuloon bu njëkk ku jox fasu naaru góor day mel ne jox nañ la lépp Lat Joor signé contrat bi waaye comme xamuñu raay fii ni mi mel mësuñu koo gis am dagub la joor boo xam day dem ay male ci réewi penku yi kenn ku ne xam daa bëree xur gis nga ni mu mel mu gis ne dañ sëkkab raay ni mu mel ko ñëwaat ci dagub la joor ci la joor ne ko euh, raay bi nga digg tubaab bi tubaab bi ndëgg sërëx la lay lalal ndax boo fi defee raay bi kajoor day doon ñaar te mënoo moom fii moom fee la joor baasawu ca mémoire dagam boobee daal di ñëwaat ci tubaab bi ne duma ko def ñu xeex tubaab bi gañ a xeex bi la joor gañ a xeex bi bokk tubaab bi defee renfort ci la Lat Joor jógee fii nga xam ne mooy Kajoor dem ci Buur Siin loolu moom dafa dut xaj bi mu jógee ci Buur Siin waaw ci Buur Siin la njëkk a dem ci la njëkk a dem mhm. ba mu demee ci Buur Siin sax loolu mën naa ko ci dugal rek ndax nit ñëpp gën a comprendre mhm. ba mu demee ci Buur Siin boobu façon Lat Joor yi mu daan bi mu daan war mhm. genn waay la ko tudde woon tuddu ko maalaw waaye bi mu demee ci Buur Siin dana ko da nga may jox sa jigéen bi ñu naan Xureeja Mbooj ndax Xureeja Mbooj ak Lat te bokk ñu bàyyi ngóone Lat Faal leen jur xam nga loolu la la door na ko man kenn du ma chantage ndax lii nga ma bëgg a def loolu nii chantage la Bour Sine nag bëggul na ko génnal ndax li ko dal mën na koo dal asa same Bour Sine daal na ay dagam kii lan laa ko mën a def ba mu bandoon dem ñu ne ko boo koy minimiser muy dem xeeb dal bu bët sa jotee Bour Sine woo ko ne ko man dama yaakaar da ngaa guy ron gudd rëy waaye ni nga tol nii doon càkkatéew jàpp naa ne mënoo dax sa kenn nit bay dax armée bi lëm dégg nga Lat Joor daal di mel ne ca yàlla baal ma gedd daal di takk aw fasam wuti nag ca mabba bi mu doxee un kilomètre daa gis guy gu mag daal di téye fas yi daal na Demba War ak ñi mu ànd leelu mu ñu ne ko lee des na ko baobab ci nasaraan mu ne bu dee ci wolof nag ñu des na ko wax guy mu loolu du nekk ci suufam nga xam ne yàgg yàgg guy gi ci suuf nga koy seen lu mu tudd ñu ne ko loolu des na ko wax lawbe mu ne kilifaam nag ñu ne ko des na ko wax maalaw mu bis na ko tey sans fas yi turu jenn waay ji ko tudd woon dindi naa ko tudd naa ko maalaw ndax maalaw bu ñëw ci garab gi garab bu ñëw ci garab gi garab gi ko sut ëpp ko waaye yàgg-yàgg garab gi suuf nga seen mm-hmm. jikko jooju laa yor man mm-hmm. la doon wax dindi turu fas wa ko maalaw mm-hmm. ba demee ci lu mu rëy kon na ko mën a waaw lu mu rëy rëy rek lab law bu ñëw ci garab garab gi ko sut ëpp ko waaye yàgg-yàgg suuf nga seen kon ni ko buur suñ xeebe na ko damaa ko nag cakkati ngoo rëy amul solo foofu loolu la ko jubloo wax ba mu demee ci màbb nag màbb na ko seen waaye yeeg seen yi ngeen takk da koy dindi ma wat la donte nag yaa ngi doon dund diine waaye des na nga jël wér wérdu tijaaniyee fii ma soog laa fat Lat Joor daal di def loolu 1862 ñu dem nag ba 1863 tubaab bi di fi yëngu di ñëw yëngu di ñëw mabba comme mooy almaañ bi gën a mag xam na ne tubaab bi bu ñëwee fii ak la xeetoo Kajoor bu fekkul la la Lat day dal ci ñii mhm. mu ne sëriñ Mamar Anta Sali yow mi nekk njax ak ñu mel na yow ñëw leen fii ci Saalum ñu dajaloo doon benn bopp ndax Lat Joor tubaab bi bu ñëwee Kajoor bu fekku la day dal ci seen kaw dëkk bii di Xuru Mbàkke ci la gente 1863. macha allah waaye nag doon xare boo xam ne dañ ko doon woote ndax askanu Mbàkke ku xam jàng taarix xam ne ñoom duñ xeex mm-hmm. ndax Maara Mbàkke Mad Lamin Sarr ba ko ba ko ba ko Massamba Fabe rayee ba ko dammel ëmbër ngoone sabal ne boo ma rayee la Mad Lamin Sarr ma def la farakaba mu ñëw yeeru Mad Lamin Sarr euh, ba ray ko ñu def ko ñu def ko farakaba ku naan Massamba Fabe ba ca dé ba bañ ba ca déwén sa euh, ñu takk ab xare woo Mara Mbacke ca Sañanka dana du ma ndax loolu du jaat am loolu ndax rek di ko faj mm. kon ku xam loolu kon mm. doone fii mm. dañ fay jóge ngir doo tab xeex déedéet waaw nii ma la xam noonu la demee ci ci ci ci ci kon leer na taarix bi leer na wax nga itam dëkk bi mhm. sëñ moo Anta Sele ko sanc ak li taxoon mu sanc ko mhm. ak ginnaaw bi mu gentee mhm. ak la waraloon gent gi ak xibaar yi ñu ciy wax waaye lii nga wax mooy li nga xamante ni moo gën a wér xibaar ndax ku leen xam-xam na ñoom duñu xeex duñu xare rawatina ay xare intérêt yooyu waaw siiw na nag ñoo yaanaan xare waaye du woon xare loolu du woon xare jërëjëf léegi mu doon dëkk boo xamante ni ku ko tudd tudd taarix ay soxna soxna jaara ndax soxna jaara bari na fu ñu fu ñu koy askanale lu ñu koy askanale ci barab. Mhm. fekk fii la xewe ndax fii la yàgg. waaw fii la nekk mhm. xew-xew yu bari ñu koy wax ci te sàkket week. Mhm. xar gaal gi xambe kook yooyu yëpp. léegi yooyu tam bëgg nañ nga dikkal. maanaam soxna jaara fii fukki at ak benn la fi am. ndax ñu def mathématique. 1852 ba 63 boo calculé fukki at la la jox wala fukki at ak benn soxna jaare foofu la ko def teen bee di teenu caaxaw fa la daan roote te kenn ku ne xam na ne. paan bu njëkk ba paan gu weñ la ñuy roote paan gu weñ googu daanaka boo ko sottee ci paan yi day mat ñaari paan te mbat xur wi da ko daan jéggi fii la daara ji nekkoon donga yi dañ ko daan kar laata mu egsi naan paan gi daanaka ba mu jeex ca du ci mer du ci ñëkkal kanamam day wëlbatikuwaat dem rootiwaat yalla dogal na teen bee ñoom defuñu ko foon dañ ko fa fekkoon waaye nag barkeb na jaar lu mu laal rek moom daal di ko daal di koy nangu Sëriñ Tuubaa yàlla na Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne tout tànk la suñuy nopp mu doon ko boot deewul nangoo jaxasoo ak mboola mbooloo ab teen nag bu fekkee defoo ko fa te yoroo sa goju bopp te ki nga yor di bañ a jaxasoo ak mbooloo il faut nga wut sa goju bopp boo ko wutul du sotti mhm. maam soxna jaara wut ab goju boppam ak baagu boppam boobu poli nii amul di kii laxu lañ daan def laxu mooy waaw xam nga ko kii def nii muy jaar gàll bant mu ci jaar kenn ku ne xam ne ne ak buum tamit bu fekkee day jaar ci ab ciment day gaaw a tàng day dagg mhm. bu buum gi daggee soxna jaara bu ko neexoon day ñëw ne sëñ Mamar Anta Sali jox ma ma jënd ab goj ndax war na ko waaye du ko def day jël sërub rabal sërub rabal jamono yi rek dafa seer moom la ñuy muuree ñuy dem kër jamono yee comme or waaye soxna jaar day jël sër bi xotti ko rawaat ko ba mu ba mu ba mu toll ne la ca doggoon mu takkaat ko ci continuer ay rotam loolu ak jaamu yàlla foofu la tàmbale foofu la maa ngi dégg nag am ñu ne am na baag bu mas a tàbbi Serigne Touba jóge ci ginnaaw ak soxna jaara dugg ci biir teen bi génnee baag bi ba nopp daal na soxna jaara bu ma feeñal soxna jaara mat na mat goo xam ne bu ko sëñ Tuubaa ne bu ma fayal ba ilaa yawmal xiyaamati kenn du ko xam hmm. kon wax ji fu mu jógee fu mu jógee lii ma la wax rek goj bi dagg nga mot li hmm. hmm. moo ma ko weddi waaye du ma ko du ma moo nekkoon beneen bi ci des am na daxaar gu fa nekkoon goo xam ne soxna jaara bu saan ñëw fekk nit ñi bari ci teen bi day toog ak sëñ tubaa ca daxaar googa ba nit ñi dem comme mi nga gojo boppam mu dem rootal boppam su paree wékki bagage su boppam daxaar ga ba tey ma nga fa voilà gaal gi nga wax am na ndax dañoo jekk ba waxtu nawet asamaan si taw ba tooy xëy na mu fàttee fat mat wala daa amul mat sëriñ Mamar Anta Sali waxtu mu ko daan tàngalal kafe soxna jaar xam na ko sëriñ bi sax néew ko tàngalal ma café mhm. ndax waxtu la woon woo xam ne saa bu ca tollee daa a tàngal café mu xool xool amul mat mu daal di génnee gaalug dénkam goo xam ne waajur moo ko joxoon mu doon matériel bu seer mu génnee yére yi ëmb ko fi barab daal di xar gaal ga tàngalal ko ci kafe la ca des mu denc ko ndax ak gaal mënut ta jeex ci kafe loolu amoon na fii soxna jaara nekkoon na fi ak soxna Fatou nekkoon na fi ak ak ak soxna Corom Marosa euh, nekkoon na fi ñu baree bari ak soxna Anta Ndiaye Mbacke waaye jàppe wu leen ay wujj da leen a jàpp ay mag ay kilifa da leen jàpp ay mag ay kilifa nga xam ne jamono yooyu amul woon firigo di seral ndox ak yooyu day rooti bu ñëwee def ko ci bool bu yaat di ko wéyeeg di ko wéyeeg di ko wéyeeg ba mu sedd xaw tane mu di leen ko jox ñu naan. wala waxtu fajar ñoom bu ñuy tëddi nelaw mm, kenn ku nekk mu ubbi sa ndaa rootal la ko ba mu fees dell da ngay yow rek gis ndaa li fees dell soxna jaar daana ko jëf fii kenn ku ne xam ne ab dongaat bu fekkee dafa nekk ci daara sore ay waajuram dafa laaj ab toppatoo soxna jaara daana ràbb ay sër ndax da daan daana ràbb ay ba mu jekk eh, di bu donga yi nelawee gudd mu leen di topp di leen ko sànke loolu daana ko jëf fii nga xam ne am na fi fukki at benn lu baree bare nga dégg ñu koy wax daal sëñ bi fii la ko soxna jaara doon defe waaw am voilà euh, léegi nag mm, ci sa biir wax wax nga dëkk bi dafa gentoon mm. waaw dafa gentoon ginnaaw bi sëñ Mor Anta Sali demee Saalum waaw waaye nag léegi ñu bëggoon a xam mm-hmm. ginnaaw gent googu kañ lañ ko sancaat mm-hmm. ak ko ko sancaat mm-hmm. ak sa sëñ bi maanaam bi mu bi ñu fi denc sëñ Abu bi eh, cinquante ba ba dix-huit loolu juróom fukki at ak juróom la dëkk bi gent na juróom fukki at ak juróom dara dara nekku fi lu muy xëbru sëñ Abu bi waaye Serigne Touba bi mu demee ci tukki bi dane Abibullah ca xoru Mbàkke di njax daf may feeñu ci baatin naan ma nii nga ma mujjee jamono su ma ne la mujjoon du ma wéete nii loolu nag ku gëmul baatin mënoo ko gëm ndax da nga naan nu mën a nekk ba Serigne Touba dégg loolu Serigne Touba bi mu ñëwee 11 novembre 1902 ci tukki bi ba dem Ndar waat fa dem sànnoo si war fa weer koor ba mu jeex ba ñëw Dóoru Salaam ngan nga ko maam sa anta doon ganale ba jóge fa dem ci tënk dem gànnaar jóge fa dem Thiène Jolof ba ñëw njëriñ 1912 dégg nga mm-hmm. fekk booba njag yi Ahmadou Bindakan mi fi nekkoon faat woon na bàyyi fi ab taawam ñu naan ko maam gàmmukan mm-hmm. am geneen njago fi nekk bu ñu naan ko njakkar majey ca kaw nga xam ne majey bàyyi ko moomoon mm-hmm. eh, bi ñëwee ba 18 xam nga 12 bu ñu ca tegee juróom benn 18 lay doon eh, moom ci la ceebal sëñ bata waaye nag 1906 1906 la ne maam Cheikh Ibra Fall dama sanc nja dublu woon ko njag yi maam Cheikh dem sanc nja ma jéy dend ak ma jéy mbaay ba tey it maam Cheikh Ibra Fall foofu daal dend ak ma jéy mbaay suñ tudd dëkk ba ndax ma jéy mbaay moom moomoon dëkk ba maam Cheikh Ibra Fall ñëw dend ak moom ñu tegaat ci yeneen ñaari at nag di 18 mu woo sëñ Mbay Jaxate ne ko njakkër gàmmu kan laa wax sëñ Mbay Jaxate ñëw soog a sancoon fii la sancoon ginnaaw bi la fa joge dem fee bi eh, bi muy ñëw boole woon nag ku naan Matar Njaay Saaxo ak ku naan Balla Fall xëlëre ndax ñoom fekk woon nañ denc ba ay ñu wane barab ba gis fa ëkkuk jalambaan ak na mu demee lépp. ñu ñu ñu sanc sañ sëñ Bajax sanc foofu 18. dégg nga bi 18 daataan jeexit maam Seera Fall jóge njëkkër ma jëy ñëw sanc fu naan kër Balla Fall. fiir ci kanam booy dem booy dem Dula. sëriñ Bay Jaxate boot loxo yi fekk ko fa. ne ko Fall daa mel na da ngaa mooy barab bi egsi woo. daa ngaa mooy barab bi egsi woo Seex Rafal ne ko Ababacar mu ne ko Mbàkke mu ne ko dama laa ñeewante ndax day def ku ma dendal ay sàkket balaa ren di déwén say sàkket nekk ci sama biir sàkket ma ëmbaale la mhm. waaye sëñ Bayax daa amoon ekkam ne ko ñun dafaal amuñu ay sàkket mhm. sàkket sëñ Bamba rek la ñun mhm. Seera Faal soo ko sempi koo foofa ñëw sanc mooy fi ma dëkk man mooy pëleen waaw loolu loolu loolu loolu loolu mooy deuxième sanc eh, li tax nag fii jërë ñëw mooy Serigne Touba bu demee ci tukki bi mës sa ñaan nasaraan bi dara mësu koo soxlaal dara lool sax mooy sama question bi ci topp <laughs> waaw waaw waaw ndax euh, siiw na ci histoire ne Serigne bi Mmh. demande woon na autorisation. Mmh. ci génn parce que xam nañu ne résidence surveillée la. Mmh. waaw waaw xam nga Jabaré la nekkoon Diourbel. waaw résidence surveillée. mais demandé woon na autorisation. autorisation bi ñu ko ko mayee. xëy na benn fan la woon. ñëw na ci xuru Mbàkke loolu tam bëgg nañ nga ñëw ci. waaw mooy mooy kii li ma jëm na xam nga nit ki ba tubaab bu fekkee daf laa yóbbu ci tukki juróom-ñetti at ak nangam. mosoo ko ñaan dara. mosoo ko soxlaal dara. soo demee ba soxla ci moom yónnee ñu la ko defal loolu la ñor la. ndax bi mu yabalee ñu 18 ban sanc ko Serigne Touba daa woo sëriñ Balla Coro ne ko damaa bëgg nga waxal ma nasaraan bi ne damaa bëgg a dem foofu di xuru Mbàkke di njax ndax sëñ Balla Coro moo yoroon moo ñoroon lépp sëñ Touba ci wàllu woowu sëñ Balla Coro bi mu demee wax nasaraan bi nasaraan bi ne ko Balla Coro demal indi sa carte d'identité ndax sëñ Touba yoru woon carte bu ñu mën a gis ndax ki résidence surveillée la nekk te buñ ko mayee autorisation mu dem ba foofu ne yàllam jii mu àndal joxatu ko ndigalal mu ñëw njéeréem Balla Coro yow la ñu amal affaire hmm. Balla Coro comme xamantoon nag Sëñ Tuubaa biir biti hmm. daal ne moom de bu nee dana ñëw dana ñëw ñu may ko autorisation ba tàmbalee huit heures ci suba hmm. ba yem yem six heures ci ngoon Sëñ Tuubaa bi mu ñëw ànd nag Cheikh Issa ak sëñ bala Coro ak lenn ca mag ña bi mu ñëwee daje na fekk sëñ Moudou mu Mbacke ci lu ci saahir xaw ma nag baatin sëñ Moudou Moustapha Mbacke sëñ Bay Jaxate di ko attaayaal bi ñu bi ñu toogee ab diir Eh, sëñ Tuubaa na na jalañ ci penc mi akub karoot wax boobu oto bëriwul lu mel na saaro karoot yooyu lañ kii am ndaw lu dem ci sëñ Bay Jaxate dina ko daa mel ne daam gan gu ñëw ci penc mi dafa xaw a xeereer ma nga muuru ba bëdee feeñ sëñ Bay Jaxate xelam dem na sëñ Tuubaa la Bay Jaxate daal di jël tablay attaay ji nga xam ne moom la doon attaay la sëñ Mudu Saa daal di koy bëmax ci ron ron gi daal di génn daje sëñ Tuubaa ñu jàmm nuyoo ba noppi bi sëñ Tuubaa daan na ko Babacar foo def ab jublukaay mooy ab jullikaay ndax xam nga bu njëkk tabax ni amul mhm. waaye ku mel ne sëñ Bay Jaxate bëggut a njëkk sëñ Tuubaa ci dara naan fii laa ko def mhm. mu xaw a nakka nakkal mhm. sëñ Tuubaa daal di julli yor yor fii bi julli farata jotee muy tisbaar mu daal di fi julli daal na ko Babacar bu ëllëgee boo fi jógee barab bàngo mooy fii ñu denc sëñ Bay fi la sëñ Tuubaa julli woon waaw sëñ Tuubaa nag bi yàlla dogalee mu ñibbi wax na tamit ne loolu ñu naan raam ak war mbott fii laa ko defee sëñ Tuubaa bi mu ñëwee nee na loolu ñu naan raam day ak wat mbootu sàllaw fii laa ko defee. Mhm. dëgg la jërëjëf sëñ Mama. Mhm. yaakaar naa ni nga ko leerale nii. leer na leer goo xam ne ku ko ku ko déglu. dana xam léegi. Mhm. sabab bi nga xamante ni moo taxoon sëñ bi. demande woon autorisation. ñëw fii e, seet si. xuru mbàkke mhm. ak li fi fi nekk ci ay jeexital mhm. Mhm. waaye nag ñu bëggoon ñëw ci jeexital yooyu ndax ku tudd xuru mbàkke wax ne barab la boo xam ne dafa am taarix ci yoonu murit am ay jeexital yu bare bare bare yoo xam ne bari bare bari ñi ngi ci tund wii Tuubaa gii dong te xamuñu li xew xuru mbàkke loolu nag moo waral suñu émission nemmeeku bi ñu bëgg nga li ñu waxal ñu yenn jeexital nga xam ne moo fii ndax am na njabootu sëriñ bi gu fi nekk wax na sëñ Abibulaay moom nga xamante ni mooy rakkam mooy rakkam mooy wax nañ ne xëy am na ñu wax ne mooy caatum no soñ soxna Faati Mbàkke mooy mooy caatum ne ko sëñ Modou waxee mangoog kon léegi ñoom moom mhm. mi ngi fi sëñ Mbay Jaxate mi ngi fi te ku tudd sëñ Mbay Jaxate mhm. tudd Xuru Mbàkke mhm. yooyu yëpp di yoo xam ne ay jeexital yeneen yoo xamante ne mi ngi ci Xuru Mbàkke sëñ mam euh, maanaam ñu fi denc da ngay dégg ñu bari ci waxtaankat yi ñu ne sëñ Tuubaa Xuru Mbàkke la nekkoon lu mu am mu dem sa borom jox ko ndigal na ko sancal Daaru Salaam loolu du wax ju wér sëñ Touba cinquante deux bi mu ñëwee fii jóge fi soixante trois fukki at ak benn lam bi mu fi ñëwaatee moo yoon bi mu ma la kon jotu fi samp kër léegi nag bi mu ñibbee dix-neuf mu ne Xuru Mbàkke dëkk bu tedd la dëkk bu barkeel la dëkk bu ma fonk la ndax sama wóyuroo ko sancoon te moom la njëkk a bu moomal boppam Maam Mor Anta Sali dëkk bu moomal fii fii la njëkkee sëñ mën nañ ne fii la dalay jàng suñuy nopp ba am fukki at ak benn dégg nga léegi ma ne kon ku faatootu njëriñ sama njaboot dama la yóbbu Xuru Mbàkke ngir denc la fa doomi sëñ Tuubaa yi ñu fi denc ñëpp 1919 lañ leen fi tàmbalee denc 20 21 ba 27 la fi sëñ bi jógee kon ñii nan la ñuy mën a magee sëñ Mourou Moustapha nan la ñuy mën a magee sëñ Fallou loolu wérut lii ma la wax nii ma 1919 lañ leen fi tàmbalee denc 20 21 bi sëñ bi ñëwee ba dem loolu moo am waaw ñi fi nekk mën nañ cee lim ku mel ne sëñ Mamadou Abdoulahi Mbacke Cheikh Abdou see Cheikh Abdou Baaxe Cheikh Abdou Salaam Cheikh Abdou Jamil Cheikh Abdou Salaam moom moo nekk ci raay bi bu dee jigéen ñi nañ ci nañ ci mën a lim mooy soxna Aminatu Mbacke soxna Mosinatu Mbacke soxna Fatou Bintu Mbacke soxna Mariama Mbacke soxna Mariama Mbacke ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk fii sëriñ bi waaw. tabarakalla léegi nag ñu bëggoon a xam. Mm-hmm. sëñ Baye Jaxate moom. Mm-hmm. ak dëlem fii sëñ bi mm-hmm. da koo joxoon dëkk bi. ginnaaw bi bi mu buñ ko buñ ko sancaatee. da koo jox kilifteefu dëkk bi. wala lan mooy nekkuk sëñ Baye Jaxate fii. Ah, maam sëñ Baye Jaxate ba mu sancee fii moom dafay doon dafay doon yaroon daara moom it. di jàngale di yar mag ñi ak a di liggéey di jox Sëriñ Tuuba nekk fi ci ndigalu Sëriñ Tuuba nekk fi di way ay walafal yooyu ngay dégg noonu moom it Sëriñ Tuuba ko waxloo muy waxtu loo ci walafal yooyu moo ko loo mu jëf ci walafal yooyu ndax sëñ bayit yàlla dogal na ak ñoom ci Sëriñ Tuuba bu xajee tamit ñu laal jotuuti ñoom ci Sëriñ Tuuba waaw Tuuba bàyyi xaali da ko daan toppaata mhm. jàngalu ko waaye bi sëñ Tuubaa di nekk Mbàkke Kajoor ci nekk Maam Mor Anta Sali sëriñ Tuubaa daan jóge Mbàkke Kajoor dem bàyyi xaali di ko toppaatal mhm. sëriñ Bay Jaxate 1873 la gën a jamono 1873 mhm. kon bi ñuy woote yoonu murit mën naa ne sëriñ Bay Jaxate juróom-ñetti at la ndax 1873 ba 83 boo calculé léegi ma jox la 8 ans dégg nga waaye nag da nga dem fi barab comme gone yi gis la comme ni nga ñëw fii gis la waaye di la kii na kon ruux sëriñ Bay Jaxate waaye bi loolu di xaw di loolu xaw ba Maam Mor Anta Sali mbàccub liggéey 1882 ñu dem ba 1883 Serigne woote woote booba mag am ci ñu ñëw mhm. am na magi sëñ Mbay Jaar sax ju jotoon na ñëw mhm. waaye kooku euh, seriñ Touba dana ko demal topp sa wajur ba noppi koo gis mhm. waaye ci tënk bi fi sëriñ bi demee ba doon mu kàllaf ba dem ci tukki bi 1895 ñu teg ci yeneen juróomet di 1900 ñu ñu bàyyi xaali nelaw complètement waajur sëñ Mbay Jaar te ci kër Makala ñu tegaat ci beneen at bi 1901 sëñ bay jaxte daa jóge foofu daal ne damay dem ca kam ak gisoon nag am ñu ko sës ne ko ñaara la gaar ba mënoo dem mm-hmm. ndax benn bi arot ak naxu mooy tax nga mën a way te mën a goo ko beneen bi ci deset kooku ngay dem tubaab bi yóbbu na ko te tubaab bi mës a yóbbu ku ñëw te kooku mënut a gën a morom mm-hmm. mu ne lu mën a xaw damay dem daal di laaj ko ko fi nekkal ñu ne ko maam Thierno Ibrahima Fari rek ko fi nekkal te mm-hmm. ñëw ne fi 1901 ba tegaat ci beneen at di 1902 bi Serigne Touba jaar fi mu jaar fépp ci tënk ba ñëw Daaru Salaam ci ngan gi ko maam Seex Anta doon ganele Serigne Touba nee na ana Baye Xali ñu ne ko mbàkke kooku di neloon sa ginnaaw mu ne a da waroon naa ko fa fekk ba yàqal ko ndabam li ndax bàyyi xel yi da ko toppaatoon sëñ Tuubaa ku ko lebal léegi da lay bëgg a fay moom ne ko moom di nekk fi waaye doomam jooju di Babacar Jaxate mi ngi fi mu ne mu ne wooleel mu ko mu ñëw biñ woowee sëñ Mbay ñëw sëñ tubaa natt ko ba xam alluwaam ne man na alxuraan mhm. waaye ba tey aratug na moom mënagu ko mhm. mu boole ko sëñ mën Lamin Gay Firdawsi borom Daaru Gay mhm. ne ko Babacar mii xam-xam boobu di arot ak naw def ko ci moom sëñ Mat Lamin Gay yor ba sëñ Mbay Jaxate ab diir mu mel ne xel mi ubbeeku ci mm-hmm. waaye daam am na nar a xëy mm-hmm. sëñ Mat Lamin Gay ñëwaat boof ci sëñ Tuubaa ne ko daa mel ne day Ababacar mi xam-xam boobu di aratoog na xel mi ubbeeku ci sëñ Bay sëñ Tuubaa daal bari na mënu koo ñàkk xam mm-hmm. bu ko mënta xamee ñoo ñu xamale ko neneen sëñ Tuubaa sol sëñ mbay nag ba mu fees del bi mu feesee nag sëñ Bay génne aw bayit wax di wax gaaya ko doon waxoon naan jàngal aratoog naxu mu daal ne waxal ma gaaya ma naan jàngal ma xaaroot ak na dex gaa ngi nii du ma koy soxlaat baaga gi garab gi tàbbi na man maa ngi firoon nga di for du ma di yéegati bay daanoo ko damm ko toj soog na waajee gis ak waajurul gis te suubam ngi rëyam ñooy tax di seet ak a gis ñooy tax di làmb ko daj ne làmb naa daj naa gis naa sëriñ bi jàpp naa ci ñëwati ci weneen bayit ne ak bon maa fi daan bojjaan kay rootaan di weesu dàggaa ki dex ci lii ko doy kiimaan sëriñ bi wan na ma dex te wan ma dàggaati nag mayroota kay bojja kay kol kol defe ak a naan soog ne yow loo wuteew kër ma kala santal te jàpp ci kila jox njariñu kër ma kala moo gën kër ma kala kër ma kala suufa fa nekk ak i garab ak ku nit ak ndox ak dugub te yooyu yëpp nga boole nga kuy lamb foo daja fa la nee na moom fii la lambe fii la daje macha allah nee na fii la lamb fii la daje lu solo lu am solo <laughs> mënu ci woon a ñàkk ndax kenn mënta tudd histoire Khourou te euh, waxoo suñ bay mm-hmm. jaxate ngir euh, daal gi mm-hmm. ak ak ak nekkam gi fii loolu kan yàpp jàpp naa ne moo waral sax euh, xëy na xuru mbàkke mm-hmm. nekk ci loxoy waa kër suñ bay jaxate waaw fi nekk xuru mbàkke day ñaari parti donte benn la ñaari kii ndax fii ci njaxate gi sëriñ Moodu jaxate moo fi nekk ginnaaw suñ bay jaxate sëñ Abdou jaxate moo ko njëkk a wóotu bi fi sëñ Abdou jaxate jote jógee sëñ Moodu jaxate wóotu ko sëñ Modou bi mu fi jógee kuñ naan sëñ Moustapha Diakhaté di waajuru sëñ Mbay mii mhm. ak sëñ Modou bi mu fi taxoon chef de village wutu ko bi mu fi jógee nag sëñ Abdoulaye Diakhaté mais di doomi sëñ Modou Diakhaté ñu tuddewaat ko baayam bële xam naa da nga da ko siyaar mu def ñaan bala ñoo dem mhm. fi na mooy xalifa bi bu dee ci wetu kër Cheikh Ibra Guèye mhm. ku ñu naan sëñ Sidi Fall sëñ Mortala boog moo fi noon moom moom moom moom moom moom Cheikh Ibra sëñ Mortalaat li taxoon ñu jox ko fii maanaam comme dëkk bi li ko dekkal dafa mel ne wattu ay barab la te sëñ Mortala Cheikh Ibra ko yar mm-hmm. ah, sëñ Touba ko yar boog Cheikh jur mm-hmm. sëñ Touba ko yar mm-hmm. ndax Cheikh Ibra daana wax ne sëñ Bamba moo xarañ ma jox ko Mamar martala Fall di ko ko yarloo mu soppi ko boppam ndax Mamar Talla dana woon tek moo tax sëñ Touba seenu nekk mënoo woo sëñ Mamar Talla ba mu ñëw mënu ko dëkk biir xurum mbàkki ginnaaw sa waajur buñ buy maye nañ la ko maye buy jaay nañ la ko jaay buñ koy lebleet nañ la ko lebleel ndax xam na ne Baye Fall dafa baaxoo am yëngu te ëllëg bu fi Cheikh Ibra jógee keneen mën naa doon këru xurum mbàkki di fi yëngal ni Baye Fall baaxoo yëngale dëkk bi dafa baaxoowut ab yëngal ndax doomu Sëriñ Tuubaa yi fi tëdd bi Cheikh Ibra Fall nalawee 1930 Serigne Mourou Moustapha euh, Sëriñ Mortala ci ak taalibe mu ne ko ci ndigal damaa bëggoon ñu rafaatal ma kur kër xuru Mbàkke ndax dama ci am ndigal mm. ñu daal koy rafaatal ci alal miraas ci miraas féetalag ko sëñ Sidi Fall nekkon fi premier xalifa sëñ Mortala bi mu fi jógee sëñ Assis Fall nekkoon fi bi mu fi jóge sëñ Abdou Rokhaya Fall fi ne moo fi nekk kon ba ñaar ñoo fi ne sëñ moo nekk fii ci kër sëñ Mbay Jaxate bu dee kër Cheikh Roga sëñ Abdou lépp benn kon xam naa ñu ngi ci catul jotaay bi Xuru Mbàkke mhm. ci commune Dalangaabu la bokk wala commune Ndula waaw Xuru Mbàkke ci commune Dalangaabu la bokk waaye nag dafa nekk ci frontière bi mhm. ndax fi dëkk bi ngay seen nee di mbili ak njax mi ngi bokk ci ngay mhm. dëkk bii sa ginnaaw ni dundu la Euh, moom it gisoo kii la mhm. euh, ñun ñu bokk commune Dalangaabu kon Xurum Mbàkke da loolu ñoon cin ñetti wars la Cheikh Ibrahima waxoon te gébbu moom moo nekk fii waaw cin ñetti wars ndax kii ñoo ñoo ñoo ko seq mhm. mhm. macha allah kon xam naa suñu maam ma. waaw li amoon ci waxtu jeex na xëy na waxtaani Xuru waaw xajul sax ci benn jotaay. ay jotaay jotaay. waaye tey dañuy ubbee rek. Mm, mm. Xuru Mbàkke comme émission nemmeeku la. te nemmeeku moom barab bu am taarix ci yoonu murid. benn gënu jiituwu ci Xuru Mbàkke. looloo waral suñu tànk tey. ñu ngi lay sant di la gërëm ñu bàyyi la nga togg tàggoog yi. kon sëñ bi ñu ngi sant bu baax di leen sant euh, M. MK TV MK TV. daayira Muxaddamatul ma mm-hmm. ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax di topp tànk sëñ bi dafa bokk ci liggéey bi gën a kawe ndax sëriñ Touba moom eh, mbiram eh, loolu sëñ Mbay da jaxate wax rek ne eh, xànjaru dar dar ci wurus asal bu ko tëgg di gis ne xëy na day nuru wurus na du wurus wurus du fo mm-hmm. waaw bamba foo te fëlawut kon moom yeesal bi ngeen nekk nii ndax fu ngeen ko teg ñu gisoo ñu xamaat xuru Mbàkke nangam naam donte nit ñaa ngi fi ñëw waaye daal moom sant nañ ci baax a baax a baax sant nañ la baax sant sa gaay yi nga àndal ak waa kuréel bi ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér sëñ Amdi Mbuudum Benda sëñ Abdou Roqee Fall sëñ Abdoulaye Xalifa sëñ Mbay Jaxate ñu ngi sant bokki teel bi yëpp mboolem ku doon dégg suñu kaddu ñu ngi tuub baax tey jégg la jërëjëf jërëjëf sëriñ Mama Diop. Mhm. jërëjëf sëriñ Mama ci mhm. euh, leeral gi xam ne leeral nga ko tey. Mhm. ci taarixu Xuru Mbàkke. yaakaar naa mbo téléspectateurs yi seetaan tey am nañ ay bind yu bees. ci Xuru Mbàkke waaye itam am nañ itam ay jubbanti. lu am solo ci yoo xamante ni déggoon nañ ko ci taarix bi te doonutoon lu wér loo xam ne tey ballaloo nañ ko ci sëñ Mamba Diop ñi nga xam ne moom moo ñu doon dalal fii tey ci Xuru Mbàkke ci suñu émission nemmeeku mooy jataay bu am solo boo xamante ni xëy na ni ma ko waxee mooy wax taarixu Xuru Mbàkke mhm. yow xajul sax ci benn jataay kon lii ak ubbee la rek mhm. waaye dañ del si waat ci yeneen i jataay mhm. ndax kuy wax taarixu murid yoonu murid moom Xuru Mbàkke nga ci war a jiital ndax dëkk la boo xam ne suñu Mor moo ko sanc comme ni mu ko leeralee waaye itam gis ngeen li fi xew ci yu baree bare ci nekk ko soxna jaare nga xam daanaka am na fi fukki at ak benn wala fukki at loolu kon jàpp naa ne dëkk bu mat a waxtaane la dëkk bu mat a nemmeeku itam la jeexital yi nga xamante ni am na fi itam jàpp naa ne fu mat a siyaare si la foo xamante ni ni ko sëriñ bi waxee kilifa diine yoo xamante ni. Mm. dañuy ñëw xuru Mbàkke di fa siyaar si. Mm. ngir sëñ bi lu ko jaral. Mm. mu demander autorisation. ñëw fii ci xuru Mbàkke. loolu jàpp naa ne war na murit bu nekk. ñëw fi siyaar si kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax sëñ Mama. di jotalu cantu xalif bi nga xamante ni moo fi toogal sëñ Bay. bi fi toogal njabootu sëñ Mortala. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ak MKTV bi nga xam ne ñoo déplacé wu ñëw fii kon mbokki téléspectateurs yi li lañ leen indiloon tey ci seen émission nemmeeku di ci ci ci taarixu Xuru Mbàkke muy émission bu am solo euh, di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci émission bi Serigne Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy coordonné émission bi nekk réalisateur bi waaye itam di sant bu baax a baax suñu caméraman ji nga xamante ni ñoom lañu àndaloon ñu defal ñu découverte bu am solo ci Xuru Mbàkke seriñ Cheikh Diop euh, Serigne Bàcci waaye di gërëm Serigne Soy Bousso mi nga xamante ni moo yoroon lu aju ci wàllu photographe bi ak cadrage bi ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di leen jox dig ci suñu beneen numéro euh, nemmeeku incha allah ci fan yu néew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله